tay dañu ñëw euh, université Amadou Mokhtar Mbow <clears throat> pour accompagner recteur ak équipe am yi nga xamantene ñu ngi def liguey bu am solo ci biir université bi université bi depuis biñ ñu ko inauguré euh, liguey bu rafet lañ fi gis motax euh, ministre Abdoulaye Seydou Sow jox ñu instruction né ñu da ngeen di dem ci université yi ci école yi ngeen lëkkaloo ak ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo fa nek di jàngale pour ñu gën mëna nettoyer université yi mais participer aussi ci amélioration cadre de vie cadre de vie boobu nag pour nga améliorer ko il faut naturellement nga mobiliser ay jeunes il faut nga indi matériel il faut aussi yow nga ñëw sax déplacer wu pour beaucoup ci conception bi ak li nga xamante ne nous permettre ñu def le suivi moo tax nous ñu ñëw fii ànd ak équipe yu takku parce que indi nañ ñetti témèr ak juroom fuk ay éléments yu joggé cadre de vie nek ay écovigile ñen ñi nek ci programme xeyu ndaw ñi ñu bolo aussi ak suñu collègues yi nga xamantene ñom ñoy sonager Sonaged ex UCG ñu ñëw mobiliser wu ànd ak équipe recteur bi ànd ak tous les services du rectorat nga xamante ne am nañ compétence ci domaine bii pour ñu def liggéey bu rafet bii tey te yaakaar naa ne ku gis lu rafet lii war nga xam ne lu ñu war continuer la te pour ñu continuer ko aussi dinañ gën a waxtaan ak service su rectorat dinañ gën a waxtaan aussi ak ñëpp ñi nga xamantene mën nañ ci japp pour ñu réussir ko ñu xam nan lañ koy wéyalee non seulement liggéey bi mais en même temps aussi suivi bi parce que nag dafa bokk ci ben programme bu mag bi nga xamantene ñu ko tuddee programme zéro déchet ñukoy def ci marché yi ñu def ci université ñukoy def aussi un peu partout ci communes ci cadre bésub sétal bi des fois ak yenen activité yo xamantene ne ñu koy def désencombrement entre autres lolu yépp bokk ci li nga xamantene ne ñu fi dajalé tay pour ñu mëna accompagner université bi mais en même temps aussi jallalé message lolu su amé normalement war nañ mëna rafet njort finit ñu temps ko inshallah vraiment engagement tout en comptant ci jeunesse su Sénégal